voilà tey wax rek alhamdulilah Bara Ndiaye may nañ ko liberté mhm. maa ngi sant la tey wax rek état bi moom na jàpp ne defagul dara ndax ki jàpp ay mille et quelques personnes daanaka bàyyeegoo bàyyeegoo ci lu dul ay benn ak ñaar na jàpp ne moom defagul dara na fexe libéré ñëpp loolu moo gan mhm. voilà tuñ aussi ñun loolu la ñaan ko na libéré ñëpp détenu politique yi na leen libéré di ñaan yàlla aussi mu dolli Ousmane Sonko weer bu baax a baax te ñaan état aussi na ko libéré ak ñëpp daal Mm-hmm. gaa nag président Macky Sall moom lu ma wax Touba déglu naa ko man de dama jàpp ne mënul wax leneen lu dul loolu mënul wax leneen lu dul loolu. Mm-hmm. voilà gaa nag dégg naa ci yeneen wax yoo xamante ne ndax aussi ci côté presse bi ndax bu fekkee dañoo def lii kolo ci yeneen wax yi dama yaakaar ñoom ñaar la ñu wax ñoom rek a ko xam parce que ni ma déggee presse bi presse bi waxee. ça fait dire dañoo bëgg a jëm Ousmane Sonko toor Ousmane Sonko toor te fi mu toll yi nañ jàpp ne rek. affaire bi wii koloo la ñoom ñaar la ñu waxante yàlla rek a ko xam. Mm-hmm. waaw loolu daal laa amoon li may wax côté boobu maa ngi siyaar ñëpp di siyaar ñëpp. jaajëf salaamaaleykum jaajëf Promac dégg naa ñu 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 si numéro yooyu ngeen daal di woote bokk ci li nga xamante ni rek mooy waxtaan aimé leen partager live bi ngeen ñi nga xamante ni jotaguñu notification ñu mën ko daal di jot. ci li nga xamante nii rek mooy waxtaan bi li ñuy waxtaanee tey bokkul na ci euh, président Macky Sall di ko dem ma nga woon ci diwaanu Touba ngir janoog Serigne Mountakha Mbacké ziyaare ko ci màggal gi ñu daal di dëtmal yëkkati na fa ay kàddu euh, tàggatoo euh, nee na ko bi may màggalam bu mujj mu nekk ci boppu réew mi waaye ma ngay sàkku ci kiy ñëwaat mu baña a daal di rek wor askan bi ginnaaw moom jàpp na ni bi mu defee liggéeyam ba yàlla def ni mu jeexal ko ndax nag mu ngi xam ni ci présidentielle 2024 mu dëtmal lu mbir moom nga xamante ni ñëpp ci askan bi ñu ngi ci doon lam-laame mu mel ni confirmé na ko ci kanamu xalif bile waaye tamit mu ngi sàkku ci xalif yi ñuy wax wala ñuy àddu ci yenn situation yi su amee ci ci ci ci Afrique ndax jàpp na ni mën naa wàll si senegal bu fekkee am na beneen mbokk bu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Euh, Ibrahima France. Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di aussi. ak mhm. euh, seen euh, téléspectateurs yi yëpp. Mhm, ñu ngi lay fay. pour discours Macky moo nekkul discours sax pour li mu wax bon discours responsable la wax wax dëgg yàlla. Mhm. confirmé na waat ni encore dina respecté kàddoom donc cinq mois moo ko fi jotee moo ko dese. te ci cinq mois yi wala six mois yi dina garantir kaaraange sénégalais yëpp xam nga loolu mooy discours kilifa pour man discours responsable la la wax Sénégal nañu bañ a foowee lu ñu am am nañu lu précieux nga xam ni Afrique lu ko am bëriwul suñu paix sociale ak cohésion sociale bu ñu am moom bu ñu ko kenn bu ko kenn yàq wax nag problème amul problème yu bëri problème yu bëri na da ngay xool Afrique euh, lu xew rek depuis deux mille vingt sept sept coups d'état en trois ans xam nga loolu du jàmm. Mm-hmm. te coup d'état kenn du kenn du ko rafetlu lu mu mën ci demee dina am ay justification mais kenn waru ko rafetlu te léegi Sénégal damay dégg gars yi di tàcc quoi di kontaan xam naa dañuy ñaanal la même chose Sénégal mu am fa seen waa di peut-être ñëw. donc dañu bàyyi foowee loo xam ne kenn waru ko foowee ay góor ñoo ko tabax te am na ñu ci perte seen bakkan pour le Sénégal taxaw donc nañu wàññi parole yi responsable nañu gën ñaan jàmm te Sénégal dëgg yàlla ñoo war a sant yàlla war nañoo sant yàlla bu baax baax a baax am nañ lu précieux lu kenn amul Afrique ci euh, libération bon pas libération Cheikh Bara bi dañ koy rafetlu kenn yéenewuñu kenn euh, prison mais dama bëgg ñu. allo voilà mu mel ni euh, mbokk moom lay dem da 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 bu fekkee am na beneen mbokk bu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. allo maaleykum sànq dafa coupé maa nekkoon ci ligne bi Ibrahima sànq dafa coupé xaw ma ci man la wala connexion bi la. d' accord d' accord. sànq dafa coupé damay kii rapidement pour libération Cheikh Bara dañ koy rafetlu mais nañu gën a wax ci ñoo xam ne kenn xamu leen ci anonyme yi. Sénégal hmm. dañoo bon ci ñu siiw yi rek la ñuy wax quoi ñoo xam ni xam nañ leen ñoo ngi génn télé am nañ chance bon gars yi di leen ñu leen di waxal dañu gën a wax ñoo xam ne kenn xamu leen seen famille aussi ñoo ngi inquiété wu te amuñu kenn ku leen di waxal ci média yi notamment xale yi donc nañu gën a wax ci ñooñu loolu rek la amoon euh, lu ma ci wax maa ngi lay euh, remercier di la souhaiter aussi un bon week une bonne semaine. merci beaucoup. 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 oo te leen wax seen xalaat ci li nga xamante ni am mooy ponk wi leen daal di indi mais également ci euh, actualité réew bi ndax àjjuma bu jot dañ leen di bàyyi ngeen wax seen xalaat ci ci ci ci ci lu leen neex lépp loo xamante ni mi ngi nekk seen xol ak seen xel tey ci bisub àjjuma bi dañuy bàyyi ngeen génn ko àjjuma bu jot dañuy daal di amal li nga xamante ni rek mooy antenne libre ngeen amee partage live bi euh, ci euh, simili yi ci des mu mën a yéeg waxtaan bi gën a mën a am solo. fekkee am na beneen mbokk nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. lay jaajëfal mbokk mi tur bi ak euh, euh, hmm, euh, bi tuuti déggante bi gën a mën a neex xanaa ndekkeego wala añego. <laughs> non ndekkeegu man nag. Ah, ok loolu ah, yow rek la ñuy damay jéem a jàpp si gré la fin suuf bi di neex. diifal lekk quoi. léegi euh, bon juste euh, bon vous avez une je, très belle robe macha allah macha daal entre parenthèse la woon léegi dama ko woon wax si sujet bi quoi. Mm-hmm. léegi euh, maa ngi gis maa ngi gis maa gis. daal léegi moom xanaa léegi leer na mafia politique moom wala boutique bi. xanaa euh, casque ngay ngay ngay dégloo wala parce que déggante bi neexul dara dafay daw. waa xaar xaar léegi. da koy kii nga dégloo ak sa téléphone comme ça déggante bi gën a mën a neex. waaw baax na ok. d' dama ne waaw yaa may dégg ah? maa lay dégg maa lay dégg. voilà dama ne léegi waxu ma waxu affaire mafia politico maraboutique bi moom léegi leer na xanaa. Mhm. parce que démb gis nañ image boobu bu bu waaj toog borom borom kii bi président bi ak jamaram ak sëriñ bi toog à côté dégg nañ porte-parole li mu wax. porte-parole bi loo may wane que ñoom ñëpp ils avec le système ils sont avec le gars waaju nañ faral su waxuñu ko tara te au contraire dañ ko doon dagg waaw léegi nag jeunes yi ñoo war a jël seen responsabilité nit yi yeewu xam li fi am gisa Serigne Cheikh Al Maktoum yàlla ko yàlla yokk leeram lu li daloon Sokone daloon na ko président fii gars yi dëj ko parce que àndul ak système bi ne nit dañoo war a yeewu nekk ay nit duñu ay mala merci loolu laa la amoon li ma wax quoi bonne journée. d'accord d'accord jaajëf 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 numéro yooyu ngeen daal di woote ngir bokk ci li nga xamante ne mooy waxtaan bi li ñuy waxtaane tey comme ni ma ko waxee woon sànq rek bokk na ci euh, président Macky Sall ni ki dem mu nekkoon ci. diwaanub Touba ngir rek eh, ziyaara ji di det ma tàggatoo eh, dénk ko ki nga xamante ni mooy xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké di xam ne ni daal bi mooy màggalam bu mujj mu nekk président ci boppu réew mi waaye ba ngay sàqu ci ki ñëw waat mu bañ a waru askan wi ginnaaw moom bi mu jàppee nii def na fi liggéey bu am solo waaye itamit mi ngi sàkku ci ñi nga xamante ni rek euh, ñooy euh, kilifa diine yi ñuy àddu ci yenn ci situation yi su amee waaye tamit mu ngi daal di xam ne ni daal jamono ji ñu toll ni euh, naam bi mooy bi mooy nekk mandaam bu mujj du bokk ci présidentielle 2024 ñu dëdmal waaye du tax mu bàyyi Sénégal ndax nag dina gu gaal voilà 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 bu fekkee am ku ne ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum allo maa ngi fi mbokk mi tur ba ak fay wootee dama koy nañ la ko jiitu réew moom demam Tuuba moom hmm? jiitu demam Tuuba moom lu ko war la tant que jullit war na faa dem en tant que président war na faa dem. Mm-hmm. mooy mbiru Cheikh Bara Ndiaye. Mm-hmm. nga war xam ni waroo koo jàpp boo ko jàppee boo ko bàyyee kenn du la kenn du kenn du la remercier. ki nga xam ni deful loo koy jàppee yow yaa toog ba mu neex la arangé wala nga tuut loo ko taxal taxal ko ko jël dugal ci kaso bi kooku boo ko bàyyee kenn du la ci félicité kenn du la remercier. Mm-hmm. léegi nag Afrique nag dafa jot suñu njiit yi xam léegi ban askan la ñu jiite parce que am na loo xam ne mënatul a jàll ci Afrique mm-hmm. réew ki tax ma dugg doon ki tax ma dugg di wax mooy dugg sànq naan nañ fonk senegal nañu respecté lu ñu téye maanaam Sénégal kenn ñàkk koo respecté ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais tëlee mm-hmm. joxlam réew nga taxaw waat ci kanamu sénégalais ne di nga sàmm loo ay te di nga aar luwaay yow waroo bokk si ñuy njëkk a salfaañe luwaay te Afrique boo xoolee ñun lii mooy suñu problème président bu ci falu balaa ngay falu bu nekk da nga fa jaar ak askan wi da nga toroxalu te lu ne da nga ci dugg ba ñu jox la réew mais bu ñu la joxee réew mi li ngay njëkk a def sa première réflexion mooy naa lem luwaay yi def sama poche luwaay yi mën naa dal ci kaw ñëpp mais man luwaay yi mën ta dal sama kaw mën ta dal sama kaw njaboot léegi lu ma neex koy defee mm-hmm. mais li mu dund senegal yi fan yi passé yàlla bu coup d'état am suñu dëkk mais tey bu fa amoon man ci ñuy njëkk a génn célébré man ci laay bokk parce que mhm. am réew waroo mën a faj saw askan ba ko bëgg a wax sax di xalaat man lan laa war a wax booy génn ñu ne la bul génn mooy dul booy wax ñu ne la bul wax mooy dul ndax la xanaa nekk dëkk boo xamante ne ñun ñoo ko moom moom ñun ñoo ko doyloo yëkkati suñu alal ne ko xalal léegi yow yaa ñu doy téyel ñu sàmmal ñu suñu alal sàmmal ñu suñu kaaraange sàmmal ñu léegi moom mu ñu ko waroon a sàmmal bu demee ba wut yet te daf ñuy duma amuñu droit nag léegi léegi da fiy jóge am na ñeneen ñoo xamante ne toog nañ fi loolu mooy leen militaire laa ñu ñëw dégager la tey réew mi ba réew mi nekkaat ci dal koo ku ne am na ci droit jiitu Afrique yi bay boo ñu xam ne moomuñu Afrique il faut ñu defaraat seen toogaay mel ni jiitu européen yi nit boo jiitoo da ngay yaatu da yaatu ginnaaw am na yoo xam ne foog nga encaissé ko réew kenn du ko yor ci xët xët ak xol bu tàng ak bu ay lex non non non tubaab bi da gis ku jàkkaarloog sa jiitu réew mbéj ko Macron mbéjuñu ko fi président Espagne benn booy doon ci bët ba ci kanam bi booy bi teewuñ ko 24 heures ñu ba ko mu dem parce que dafa jéggal xam ne moom mooy président moom moo jiite xëy na bi dafa am lu ko naqari nii la nii la xalaatee réactionné mu réactionné loolu bu jéggal ko mu dem ñun suñuy président kuñ ci ñu am benn président amul ñoom dañ leen teg ci conditions yi bien pour ñu sàmm ñu mais ñoom après ñoom dañ leen def ci condition yi baax ba pare ñoom ñu wàññeeku foog ñoo def jàmm mais Macky Sall Macky Sall fi mu jaar ak sénégalais yi moo waroon a gën a respecté sénégalais yi man xaw ma ay parents mais ñi ma dégg ñu nettali ci xam seen histoire. li ñu mhm. wax mooy papam dara papam ñee la woon. di fayee ko moins de cinquante mille francs yaayam daan jaay gerte caaf ci buntu kër gi waaye yow léegi yow Sénégal fay sa njàng defal lépp ba nga egsi fii nga fii nga egsi ba ñu jox la grade bi nga xamante ne moom moo gën a riis ci grade bi mooy président de la république du Sénégal yow amoo loo ñu fayee lu dul naa leen toroxal door a dem fii la baadoo la yem loolu mooy baadoo la léegi nag yow loolu ku ko bëgg a def sam réew man bu militaire yi jógee jële la fi man ñi koy man ñi applaudir man ci laay bokk fi teg nag yoon di doxal yoon moom bis bu la fi militaire yi bëggee song moom a taxaw défendre la ci laay bopp mais président bu fi wàcc yoon bu la militaire yi attaqué moo xam ñu jël sa bakkan moo xam ñu jëlee la fi man dama ciy bëgg ñiy gën a célébrer ci mbedd bi ci laay bokk parce que ñoom gënuñu askan wi ñi la jiital gënoo leen de yàllaa dogal ne da ngaa war a jiitu parce que mbooloo moo gis kenn la ñuy jiital ñu def topp ci ginnaawam di doxal mais yow mi ñu jiital da ngay fexee doxal dëgg comme ça ñu nekk sa ginnaaw doxal dëgg rafet mais yow mënoo di wàcc yoon ba pat ñu leen ñi ci yéen ñëpp yéenay tegu ci yoon loolu mën ta am moo war a tegu ci yoon bu wàccee yoon rek. Mhm. boo xamante ne bopp dérapé li ci ginaaw yëpp day dérapé. Mhm. li ma am suñu réew si ñoo jubali ba pare nag na askan wi da ngeen jub par force loolu mënut a nekk yow mi jiitu da ngay jubal ñu topp ci ginnaaw jubal. Mhm. mais yow mi jiitu boo jubalulee bëgg gaay topp sa ginnaaw jubal mais du sotti ñëpp ay dérapé moo tax suñu réew commencé dérapé léegi nag Macky Sall il mu dem xam naa ne nag keneen kii ñëw moom di nga am liggéey bu bu méttee métti parce que pour defaraat Sénégal ba mu tegawaat ci bi moom bu yomb. parce que ni mu li mu ko yàqee dafa garaaw. Mhm. Macky Sall deseetul ana Sénégal lu dul justice ak force de l'ordre yi askan wi yëpp ba nañ force de l'ordre seen bii sax dañoo am problème déggoo wuñu dañuy wax ak ñenn ñi am nañ ci ay rak am nañ ci ay mag am nañ ci ay nijaay am nañ ci ay papa mais ñoom seen bopp sax liy xew ci réew mi ñu ci bari dañ leen a poñe rek ñemewu ñoo wax mais xam nañ ni réew mi ni muy doxee fi mu jëm baaxul sénégalais yi ñoo tolérant nag gis yi muy tàkk comme mi ngi am Sénégal mais Sénégal dafa am kilifa boo waxee ñu ne la dalal nga dal. Mhm. te li am seen chaque jour bu ñu xëyee ñu ngi koy gis Sénégal gis nga gamono gamono yi ñu jàpp nekk alal ñu bëri yàlla xam ne tey Macky Sall bi tey jii boo ko toppoon moom Marème Faye Sall Aliou Sall Mansour Faye seen kër yi da nga fay génnee xaalis bu dul jeex. pendant ce temps askan waa ngi fii di jooy benn benn paracétamol bu ñu naan ñii di dee ndax siburu. Mhm. si dimbali defalal ñu suñu merci beaucoup mënuñu leen a sàcc nañu sàcc tey mhm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, mbokk mi 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 lu ëpp euh, fanweeri fan daanaka fanweeri fan euh, tey moo nekk fanweeri fan ak ñeent leaderu Pastef bii di amal grève bu xiifal jamono ji mu nekk ca l'hôpital principal euh, nekk urgence euh, ginnaaw loolee gis nañu ay avocat am di alerter di sàkku ci askan bi ñu am matukaay wax ci euh, situation bi nga xamante ni Ousmane Sonko mu ngi koy daal di dund ndax suñu sukkandikoo ci kenn ci avocat am du maître Ciré Clédor Ly mu ngi daal di xam ne ni daal jamono ji suñu àdduwul ci situation Ousmane Sonko jëyee dina am ndax nag faj gi nga xamante ni waa ko docteur ñu ngi am jamono ji jarañootu ko dara ba na daal moom lay mi ngi daal di alerter euh, sénégalais yi voilà 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 bu fekkee am na beneen bokk mu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam mbokk mi nuyu naa la tur bi fooy wootee. waaw maam Diarra ñuy ziar man maa ngi dëkk ba Italie quoi maa ngi woote ba Italie. Hmm, d'accord yow rek la ñuy déglu mbokk mi. bon dañu bëggoon participer si le fait président dem démb ci Touba pour seeti xalif bi. d'accord yow la ñuy déglu. waaw ñun moom gëmuñu ko quoi ñun ñu les patriotes ñun gëmuñu ko. Mhm. parce que Macky Sall lu mu wax rek yow jàpp contraire bi quoi. waaw mhm. ah, pour man pour man démb li mu fa doon def yëpp folklore la quoi. Mhm. waaw man moom loolu laa jàpp quoi te patriote yëpp gars yi bu ñu bañ a tombé ci piège boobu quoi dañuy nelawal rek. Mhm. <coughs> nit ki boo gëmee li ngay def nekku ci ay kanam xalif ngay toog di ko wax. Mhm. waaw du ci ay kanamu xalif ngay toog di ko wax da nga koy jëf nit ñi gis ko parce que boobu ba léegi ñaata détenus ñoo nekk ci prison yi y' a combien de gens qui sont morts avec la avec régime de Macky Sall. mu ngi nii tey toog di kii di di simb di def ay affaire ñun ko. Mm-hmm. ah te sonkoo rek nag lañuy ñuy topp bu yeboo nag mu bàyyi ko bu bëggee bu bëggee fekk jàmm nag ci dëkk bi fii ba élection di jot mu libéré sonkoo ñëpp nekk ci jàmm. d'accord.